bu fekkee da nga jabeti xam nañ li baax si yow bu fekkee da nga rëy xam nañ li baax si yow bu fekkee aussi da nga sew xam nañ li baax si yow fii moom client bu ñuy la ñuy gis dañuy gis mag ñi dañuy gis ndaw ñi fréquence bu nekk mooy ñëw fii moom dafa équilibré mag ñi dañuy ñëw fii lu bëri xale yi dañuy ñëw fii lu bëri jeunes yi dañuy ñëw fii lu bëri ñëpp ay ñëw mënoo wax ne ñii ñooy gën a ñëw ah hygiène moom amuñu si problème parce que ñun fii ku fi dugg di nga def visite ñu xool la ba xam yow at at kii adapté nga ak suñu liggéey aussi liggéey bi dafa am tamit euh kii euh, dafa am aussi une procédure da nga doo ñëw rek nga ñëw dugg di nga takk gant di nga sor charlotte di nga takk masque hygiène bi aussi dañ koy suivre comprendre nga dañuy veiller si que hygiène parce que santé dafa sensible du ñu indi koo xamante ni nii setul parce que biir lu siy dugg rek dafa war a set kon nañuy veiller si hygiène bi bu baax xool employé yi bu baax gis ngeen ni takk charlotte takk gant am propreté pour ñu nettoyer chaque jour c'est ça parce que santé dafa sensible rek di nelaw ñaan nañ yàlla incha allah gën a romb fii ouvrir ay points yu bari comprendre parce que yi day ñëw pourtant boo leen ubbi woon fii dina gën a baax parce que li ngeen def neex nañu et tout ça moom lay gis léegi nànk-nànk la ñoo ngi si projet yooyu ñaan nañ yàlla dépassé fii ba ñuy dégg fu ne mais pour l'instant am nañ beneen bu nekk asir euh, Nord Foire ba terrain basket bi am nañ benn bu nekk foofu noonu te aussi dans les mois qui venir ñoo ngi xalaat yeneen i points feneen ak feneen inshallah ñang ci projet yoy non no client bu ñëwé li tax ñi sawar a ñëw fii dinañ leen traité bu baax accueillir leen parce que ñun ak client ay xarit lañu moo tax chaque jour même client yi lañuy gissat fi bu ñu dikkee dinañ leen accueillir dalal leen defal leen lu neex. bo fi ni eh, mo ngi nekk ci wetu mo ngi nekk ci wetu Brioche doré bi Nord Foire à côté de la Brioche doré Nord Foire boo ñëwee ba ci arrêt 34 bi wala té Brioche doré Nord Foire bi à côté rek wala té Kalifour ñu wan la ko. pour euh, en ce qui concerne le Covid bi pour renforcer le système immunitaire am nañ ay jus yoo xamante ni moo ci gën a baax comme euh, agrume bi ak euh, ay kérosène bi bi nga xam boo ko naanee day renforcer sa système immunitaire bi pour lutter contre Covid bi mu jàppale la ci daal. en ce qui concerne livraison bon bu la ci am benn problème ndax fu waaye mën a toog si àdduna si Dakar gii boo ñu woowee incha allah dina dina defal sa commande bu baax livré la ko foo mënti euh, man la Bintou Mbaye agent la ci Califri li ma motivé dama daan ñëw daan jëndal sam papa jus après ci la demandé ku bëgg liggéey fi nu muy def par la suite ci lañ ma recruté ma nek def liggéey def na fi bientôt un an donc euh, maîtriser na liggéey bi Et j'aime bien. ñu ngi protégé wu parce que tout le temps ñu ngi tak mat masque ñu ngi dëppoo charles di ñu ngi sol gant ñu ngi def hygiène bi bu baax fruits yi ñu ngi koy raxas ak eau de javel et tout ça client tamit balaa muy dugg nañ jël thermoflage def ko gel euh, éviter kii tamit euh, client yu bëri yi. Euh, man la Mariam Soufal ma occupé caisse bi fii en même temps accueil bi. dañ fiy gis dañ fi am client yépp dañ fiy am ay jeunes am ay cas mais ñëpp daal ñu ngi fi ku ñëw tamit dinañ la accueil dinañ la sourire dinañ la ba nga ba nga sentir daal à l'aise bu fekkee aussi euh, da nga am euh, ay maladies comme genre ay tension diabète hémorroïde ainsi de suite dinañ la orienter propos jox la proposition wax la lan nga war a jël loo xam dina baax ci yow. ay fruits fii moom pour Covid bi xam nga ñëpp koy xeexandoo ndax euh, mais bu ku ñëw fii dinañ la proposer nga def insister ci flash bi en même temps aussi di nga jël gel. li ñuy jaay fii moom lu frais la aussi bon sunu xëyee dañuy defar rayon yëpp la ñuy defar man damay defar rayon le matin le soir aussi damay répéter waat même chose mais fruit fi nek mom déjà mom amul fenn parce que amna client yo xamné xam ne Nord Foire fu nek lañuy ñuy jógee Almadies Mamel wakam, ainsi de suite fépp la ñuy ay west Foire xam nga Maris fu nek le client di jóge di ñëw kali fruit parce que déjà fruit bi ngay fekk fi do ko fekk fenen déjà fii da ngay ñëw fekk fi lu frais parce que ñun buñu xey xëyee dañuy toppatoo lépp le matin dañuy def rayon waxoon na leen ko sank le soir aussi damay defaat benen rayon encore en plus kon amul benn fruit fruit boo fi jël rek même bu ñu gëmmee jox la benn pomme sax jàppal ni pomme boobu dafa frais parce tellement rayon bi yëpp ay frais.